xam nga Abdou man nit ñi buñ doon defal loolu keneen. Mhm. ma mun si d'accord. Mhm. mais man dama tàmm wax ni Macky ndaanaan la mais bëggul ndaanaan. Mhm. lu tax ma ne Macky ndaanaan la. allez-y Macky dañ ko jox ndombal tànk yu bari mu tàmbalee conseil municipal dans la commune de Fatick. jeexee ci président assemblée nationale kérok ba mu amee problème ak wa PDS ndombal tank yep la tekki sur le plan politique ak sur le plan institutionnel yep même même nangoul sax poste conseiller manam nek conseil municipal fatik lu même loolu da leen koo tout à fait mais kokoy koy ay maire yo xamni bu ñu leen di fal askan woowu dañu wonoon ginnaaw Benno Bokk Yaakaar def campagne ne lii baaxul responsable Benno Bokk Yaakaar bi nekk ci koñ bi population yi jël leen voteel leen bari nañ fi yow suba teel jël loolu si suffrage yooyu détourné ko yóbbu ko si Macky Sall te ñoom ñëpp ko gis ndax élection yi sa topp muy élection législative gagné wuñu tous les maires

yow boo xamul say valeur ñoom xam nañ seen valeur xam nañ lu tax ñuy voter parti au pouvoir xam nañ lu tax ñuy yeewu suba teel teg fi parti au pouvoir ñëw voter la moo tax gis nga comportement Abdou Lahad ak am le sens de la mesure dafa am solo nit da ngay muus nit da ngay yeewu yow tey boo demul woon ci Mame booy Diaw boo demul woon ci Boun Abdallah Dionne boo bokkul woon Pastef gars yi duñ la soxla maanaam soxla bu ñu la soxla soxla wu ñu sax le nombre mais yow mii dañ lay waaj bu ñu la bëgg toroxal yow parce que maa ngi koy wax sànq off the record ma ne Ablaye Wade daan nga bëgg ñëw ci moom mu ne la jéggal naa ndax li muy yàq moo ëpp lu muy defar mais xam nga jël nit ku mel ni aadama Fall sama waay la mais Adama Fall sur le plan politique pour mu rebondiraat dina nekk problème mhm. Adama Fall mooy responsable boo xam ni taxaw nga yow jooy ci réseau sociaux yi ne bàyyi nga affaire mhm. xotti affaire yi ne bàyyi nga parce que dañ la toroxal nga toog ba si yàgg dellu si waat ne waxtaan nañ ak man je suis revenu à la maison du père mam boy jaw fak gen man xam nga duma waxal nit lo mo waxul man ko me adam yow adam yow ak APR adam yow ak Macky Sall ci plateau yep ak ni ko don défendre nga dem si mam boy mu ne ma ñaari xarit la am mam boy jaw ak biram fay biram fay il est resté mais mam boy lu mu dugg dem ci dem mhm. nga dem ba ci digg nga delluwaat ba pare confisquer ay pare am mm-hmm. en tant que délégué régional mooy ça veut dire yow boo ko delloowul li nga collecté en son nom dina am jafe-jafe pour dem ci élection mm-hmm. te tey nga génnaat ci observateur ne def la def acte bu ñaaw de lâcheté moo tax nga fayu mm-hmm. donc yow sa wàllu bopp yow nangu nga ni yow acte bi nga def c'est un acte de lâcheté. tout à fait. mais par exemple kon homme politique lan lañuy ñuy jàngal. xam nga Macky Sall dafa neex souvent di tontu Macky Sall bu la newee waaw nous avons un nous avons des gens qui insultent nga ne ko monsieur le président jéggal ma yañu ñu jàngal saaga. Mhm. ndax yow yaa ci andi Souleymane Jules Diop bi nga xam ne amul ku mu saagawul ci réew mi def ko ministre tey UNESCO qui est qui est une institution de prestige ki ñu fa teewal moo doon saaga gaay kon kañ saaga métier la Californie man tooguma ak président yow toog ak président beneen journaliste bu mag toogul ak président bañ na ko ba ñun suñu président pour nga poser ko question il faut nga nekk tubaab ba pare di liggéeyee ci médias internationaux pour am chance kenn moo ko fi amagum muy El Hadj Gueye nga jël benn insulteur public mhm. non seulement nga recevoir ko waxtaan ak moom moom il se permet même d'avoir une interview ak yow mhm. di le poser question nga tontu mhm. mais xam nga xam nga image boobu muy renvoyé nee naa leen y a deux Macky Sall le maquis Sall privé avec le maquis Sall institution et le maquis Sall privé du parce que xam nga lépp euh, fu may waxee foofu du dara bi mooy marge de dafa dafa ndaw mhm. il n'a droit xam nga nous, nit ni le président il doit tous les jours se réveiller aller au boulot mhm. comme tout le monde comme comme tout le monde il n'a que trois semaines de congé jour bu mu demul pas dem di defi politique wala muy def leneen il doit rendre compte au Sénégalais parce que c'est le premier fonctionnaire et le fonctionnaire le plus payé au Sénégal le plus surveillé et le plus surveillé Secure, c'est côté mhm. mais pour nous, may ko pour nous liguer la donc il n'a pas le droit yeewu au teel rek ne tey du ma dem il n'a pas ce droit-là donc mon image bi d'où image du yow. Mhm. ndax ñun ñaar mhm. comme acte ça engage toute la nation sénégalaise. moo gis nga suñu 5e président bi parce que li na ba pare. Mhm. Macky a a fait de bonnes choses mais il a fait de de de mauvaises choses. li may li ma li ma li may xaar si cinquième président. mooy na mot chaise. gars yi bu ñu bu ñu fooyee la charge de président de la république. non du lu ndaw gis nga gis nga gis nga duuru euh, président bi ngay wax cinquième président bu ñëwoon.